foofu euh, waaw ñaata temps ngay dem mhm. ba am bac naan di xalaat waa primaire rek am nit ñi loolu waroon cee xalaat bu ñuy jàng bu ñu nekkee sëyi mhm. ba keroog ñu nekk primaire ñu am sax loo xamante yow dana la koy jàngal boo jógee foofu maam na dugg secondaire mhm. am lu la mën a jàngal boo demee ba ba am université yow pare nga mais xool da ngay jàng yow primaire secondaire ba université yow doo xam sax yow lan nga waa def après sagaay mi liggéey soo xëy da jóge jóge jóge taxal pour ma firndeel loo ne dafa am sama benn euh, cousine boo xamante ne si man bi ñuy dugg école mën naa wax ñoo duggandoo benn at te sëñ Abdou moom France la nekkoon te yow bi mu commencé jàng jàng na si kaw man laata may am bac moom jàng na ba pare ba dugg université génn université ba commencé liggéey moom liggéey na trois ans man te boobu ba tey man maa ngi nekk université di jàng mu nekk ay détails yoo xamante ne si yow booy xool ak réalité bi am da xam ne ñun dañu tardé dañoo tardé dëgg te li ñuy jàngal ci école yi c'est diamétralement proposé ak li nga xamante ne si moom lañuy gis ci entreprise yi kon loolu tamit nekk beneen système boo xamante ne si war nañoo xoolaat ñun suñu éducation waaye war nañoo xoolaat tamit programme bi nga xamante ne si moom la ñuy def ci école yi te bëgg naa tamit ñu bàyyi xel ci beneen mot boo xamante am na bari na ay mots yu ñu utiliser ñun war nañoo xoolaat définition yi sëñ Abdou wax na ko léegi lu ci mel ni baatu tekki ñun moom dañoo jàpp ni tekki mooy yor oto bu rafet kër gu rafet yor xaalis waa wala nga am soxna su rafet te demeewul noonu gis nga ek nit ki mën na tekki ci leneen lu dul xaalis voilà am na ci dund nekk ci jàmm am stabilité rek loolu am dara dàq ci tekki la bokk mais moo tekki moom jàpp nañu boo yoru xaalis rek bokkoo ci moo tekki euh, te pourtant mën naa wuute ak loolu noonu euh, ñu gis ni loolu lépp dafa yokkaat ay jafe-jafe yoo xamante ni mm. si dafa am ci réew mi ndax euh, soxna Bintu damay wax ni mm-hmm. nañ xam ne immigration clandestine bu fekkante ni bëggoon nañ koo xeex uh-huh. wallaay kon may naa la fii ak un mois deux mois dafiy jóge euh, dafiy jeex eh, ba ñu bëggee tëj ci vingt heures ci vingt bu kenn jógee vingt tëj ñu <laughs> ak moom neew ma sax maam Dakar mais Sénégal gépp vingt ñëpp tëdd nañ ay 19 ba 18 kon suñ ko bëggoon fi ñuy dem Tëngéej xam nañ ko Mbuur xam nañ ko Ndar xam nañ ko Kayaar xam nañ ko yéen xam nañ ko foofu la ñuy dem takk nii mais bëgguñu ko Mhm. présent bi te lay soog a wax. Mhm. mieux vaut que jamais sax. mais toog ba démb ba affaire bi xew ay 500 personnes. Ah. say doomu réew faatu ci nga toog ba démb di soog wax. xam nga loolu sëñ Abdou dafay firnde ni ñoom dese nañoo am yitte ak yëg-yëg ci askan parce que deuil national bi ñu fi def vendredi bi passé askan ñoom ñoo dem ba xam ni jaadootul. Mhm. ñu commencé di xool nan la def ba rendre hommage ñi nga xamante si ñoom ñoo fi jógee mais ñoom politique saa su nekk ñi nekk mm-hmm. parce que mm-hmm. jamono ji ñu wax ne remaniement bi nga xamante si defoon nañ ko mm-hmm. euh, pour man waxtu woowu am na leneen lu ko gënoon a far waaw daar daar ñu taxaw ci problème ak situation yi nga xamante ne si moom la ñuy askan bi di dund mais di xoolaat gouvernement bi ñu ñuy dugal ak ñu ñuy dugale te ñi ñu dugalaat am na ci ñoo xamante ne si bi ñu leen dugalee il faut que ñu liggéey ci li tax ñu indi leen ci gouvernement bi mais seeni mbokk lañ woo di taaxuraan di tëgg ka fecci di xam leen ni ñoom am na ci ñoo xamante ne liñ doon wax dañ leen daan sédd yi bi ñoom ñooy séddale ñooy séddale kon dafa mel ni réew mi benn pàcc la benn pàcc la boo xamante si ñoom ñoo yor suñu alal di ko pàccoo di ko pasar pasaree di ko caaxaane ci loo xamante si moom ci lu leen neex te dinaa la wax entre 2005 mhm. mhm. Europe lañ ko jëlee pour waxoon jeunes ñoom ñoo ko moom ñi nga xamante si ñoo nekk immigration clandestine mhm. dinaa la ci limal ay quelques organisations yoo xamante si yëkkati woon nañ xaalis jox ko lu ci mel ne assance plus

compter entre 2005 ak 2017. Mm. États-Unis joxoon na Sénégal lu toll ci 17 milliards yoo xam 17 millions d'euros yoo xamante ne si. buñ ko mm-hmm. xayma woon euh, buñ ko xayma woon. Euh, mm-hmm. immigration bu ci ne immigrant bu ci nekk mm-hmm. war ngaa am 15 milliards. léegi man damay laajte képp ko moo xam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy bàyyi xel wala comme ci mën a doon bu fekkente ni xaalis boobu mas naa gis benn mbokkam boo xamante ne si bokk na ci immigrant yi te mos ci ñu ko wax léegi nag mu nekk ay laajte yoo xamante ne dañoo war a taxaw ñu laajte ko xaalis boobu fan la dugg dugg